fa rabbana fa nasalu ñoo ngi ñaan rabbana suñu borom am nan kóolute min dalaalin ci ak mooy ñu ngi ñaan yàlla moo defal ñu am na mooy sécurité ba nañ bañ mucc faaw ci ak réer wal hadiya ak gindiku fii jasmin ci dogu ci mbir yëpp wa fi'lin ak jëf wa maqaalin ak wax bi jaahi ahmada ci darajey ahmad wal anbiya ak yi wal ulama ak borom xam-xam yi al awliya ànd ak wàlli waaw mooy ñi ngi ñaan rek yàlla mu defal ñu mucc faaw ci ak réer may ñu ak njub alhadi mooy ñu jub tege ci yoon fii jasmin wa fi'lin wa maqal ci lu ñuy dogu ci suñu xol di ko jàpp wala lu ñuy jëf wala lu ñuy wax lépp yàlla ñu ci yàlla defal mu tege ci njub neen loolu nag maa ngi ko ñaan ci darajey ahmad muy muhammadu rasulullah waaye darajey mboolem anbiyaaw yi ak boroom xam-xam yi ak mboolem xarit yàlla yëpp muy wàllu yi